su ko defee mbokk yi ñu ngi leen di fas yéene dégtal dog woo xam ne ñi ngi ko jukkee ci masaalikul naan bu cheikhuna cheikh ahmadou bamba xaadimu rasul muy leeral lu bëree bari ci wàllu koor ah, teggin yi nga xam ne moo ca aju ñu xam itam ne woor tënkuwul ci ñàkk a lekk ñàkk naan kese waaye mbooleem cër yi ci des dafa war a wóor te loolu nag ngir nit ki mu jàppandi ci moom dafay fexe ba xolam jublu boromam ndax xol mooy buuru cër yi nam ko waxee ci beneen téere ne alxal bu alxalbu kalmaliki fil ahda mahma yamin tamit maq ci daa ne xol moom mooy buuru cër yi fu xol jéngi jëm rek cër yi topp ko fa waaye suñu réew mi daanaka liñ baaxoo rek mooy fexe ba wooral biir bi eh, ci lekk ak naan loolu nag di lu am solo waaye nag bu fekkee ci nga yem képp képp boo xefee xiif képp ngay am ci koor gi waaye ni biir wooree ba defoo ci benn ñam defoo ci ndox cër yi ci des yëpp noonu la waroon a wooree ci xool lu araam ci wax lu araam ci dox lu araam ci jàpp lu araam ci mbooleem loo xam ne daal suñu borom gërëmu ko loolu nit ki dafa war a fexe ba sàmmonteeg boromam ba du du def loolu loolu nag ku ne xam ne ne dafa baax waxtu wu ne waaw nekku ne dañuy bar benn weer rek ne ci la ñuy fexe ba sàmm suñuy cër ba du yëngu ci lu yàlla gërëmul loolu daf ñoo waroon suñu diiru dund moo tax may wax ne weeru koor li waroon dëgg-dëgg bu fekkoon suñu jullite bëgg nañ mu mat dayop mat mooy weeru koor li mu war a yokk ci ñun mooy bàyyi lekk ak nan ab diir rek waaye lañ daan wax waruñ koo rusa wax lañ daan jëf waruñ koo rusa jëf nañ meloon it dara waru cee soppeeku parce que nu baax niñ war a mel rawatina suñ mbokk soxna yi ci yiw ci col gu jot loolu daf ñoo war at mépp waaw nekku ne da ngay bàyyi ba weer wi ñëw rek nga ne naa génnee ya nga xam ne yu jot la kasa bu dee sama mbokki góor ñi itam ñu xool ya nga xam ne ñoo yiw ci col ka ñu ne nañ ko sol ci weeru koor gi bu weeru koor gi jeexee jeex na waaw warta demee noonu waaw loolu moom daanaka daf ñoo waroon suñu diiru dund waaye liñ miin a gis rek mooy ñu bari weer wee leen di soppi te weer moom kum soppi buy dem yóbbaale lam la soppee woon waaw moo tax may insisté toujours ne bu ñuy soppeeku nañuy soppeeku ngir jëm yàlla ndax nit ki bu soppeekoo ngir yàlla bu weer wi jeexee it moom yàllaa ngi fi te lam bëggoon lam bëgg lam bañoon la bañ kon di nga sax ci li nga xam ne mooy lim gërëm boo wéete ak boo wéetili ko su ko defee nag sëriñ bi ci xeetu soññee yu ama am solo yooyu la def ci biir téeréem bu am solo boobu di masarikul jinaan daa di wax ne summa siyaam fanta bi lam yanqasir fi adamil akli faqat la taxtarir waaw sëñ Tuubaa daf cee wax ne naka koor na nga yeewu xam ne tënkuwul ci ñàkk lekk kese waaw daal di ci teg bul waru waru kon ni koy déggee mooy jàpp ne koor moom mooy ñàkk lekk rek ak ñàkk naan fexe ba lekkoo naanoo waaw li nga xam ne tere nañ la ko ci koor yëpp nga fexe ba bako waaw dugut ne nag ñàkk a naan kese la waaye noonu lañ bëggee woon li ci sëñ bi seg ne fa rubba saa imin ma al jamaa laysa lahu fii si wal majaa waaw bari waa na koo xam ne aji woor la ànd ak mbooloo mi sëñ bi nee na laysa fii si wal majaa am na koo xam ne woor na ànd ak mbooloo mi te amul ca koor ga genn pay amu ca genn yool amu ca genn ngërëm ndare lam ca am mooy majaa xiif xiif képp la ca am ndax ku xañ sa bopp lekk ak naan ci ni ñuy woore wax dëgg yàlla xiif moom mënoo koo ñàkk def waaw woor ba noppi nag amoo ca lu dul xiif googu xam nga musiba la waaw te li koy jur mooy koor goo xam ne ci biir bi képp képp la yem waaw loolu rek la koy jur. moo tax euh, sëriñ bi daal di ciy teg ne fa sawmu an yasuuma kulla udwi an kulli ma yufdi fatan li sëhwi waaw sëñ Tuubaa nee na naka koor mooy bépp cër na woor. ci lépp loo xam ne dafay àggale jaam ci jamaj lépp loo xam ne daal suñ borom gërëmu ko ci wax lu suñ boromul gërëmul ci jëf lu suñ borom gërëmul ci jëflante loolu da ngay fexe ba mbooleem cër yi woor ca loola waaw ne kooruk tànk daal mooy fexe ba tànk du dox ci lu yàlla gërëmul kooruk loxo mooy fexe ba loxo du jàpp yàlla gërëmul kooruk bët mooy xool loo xam ne suñ borom gërëmu ko nga fexe ba bët du ko def noonu koy toppee ba cër yëpp jeex lii nag soo ko bëggee matal da ngay fexe ba sa xol bi nga tënk ko ci lu yàlla gërëm rek mooy duy ci leeru yàlla ba mu fees dell lii mooy dimbali cër yi ba yëngu ci lu yàlla gërëm yomb leen loolu nag ku ko góorgóorluwul jaayante ko ba mu sotti boo xefee bu weeru koor ñëwee balaa weer wee jeex sax boo xefee toqi waaw bari na ñoo xam ne buñ bërëngee fan yu néew rek daanaka day mel ni weer wi jeex na waaw day mel ni weer wi jeex na seen pas-pas leneen lay doon nañ sawaree woon ci naafile nañ sawaree woon ci jàngal xuraan nañ sawaree woon ci dem foo xam dañ fay dégg aw yiw Ah, bu weer wi xawee dem ab diir rek boo xefee jikko yañ amoon njëkku koor gi dañ cee daan dellu te loolu mu sibala waaw ah, mat naa daw moo tax sëñ bi ne kon koor daal mooy nga fexe ba sa mboolem cër yépp woor ah, nga fexe ba sa mboolem cër yëpp mu daal di ciy teg ne am sik ani nazari lil xaraami wal mashi wa same ma al kallaami waaw sëñ Tuubaa nee na téye sa bopp na nga téye sa bopp ci xool loo xam ne lu araam la gis nga kon bàyyi na koorug biir koorug biir mooy ñàkk lekk ak naan waaye ñëw na ci bët nee na nga fexe ba téye sa bopp ci xool loo xam ne lu araam la wal mash yi na nga téye sa bopp itam ba lépp loo xam ne lu araam la doo dox jëm ca wa ay doo déglu itam loo xam ne suñ borom da ko da ko araamal ci nga ci nga déglu ko ma al kalaami ànd ak nag wax lépp loo xam ne wax ju jubadi la loo xam ne wax loo xam ne wérul la wala jëw wala rambaaj yooyu yëpp sëñ bi nee na bu fekkee bëgg nga suñ borom nangu sa koor te koor gi boo wooree ba ngoon jot dootu jëlee lu dul xiif bu fekkee bëgg nga am mucc ci lii sëñ bi nee na kon bul xool lu araam bul dox ci lu araam bul déglu lu araam bul wax lu araam kon mu mel ni kon koor tënkuwul ci lekk ak naan kese wa kulli fikratin radiyatin bépp xeetu xalaat boo xam ne bu lay alag la waaw parce que lu bëree bëri ci lu bon balaa nga koo wax wala nga jëf ko wala nga dox ca li ci ëpp ci xel mi lay njëkkee kon ku jàng di jubbanti sa xel ci xalaat lu baaxul bu yàggee xëy na yàlla dimbali la ba doo ko wax doo ko doo ko jëf doo ko déglu ndax yi ci bëree bëri ci xel mi lay tàmbalee rek waaw xel njëkk mooy su ko defee cër yi daal di koy topp léegi nag boo jàngee di jubbanti sa xel ci xalaat yoo xam ne xalaat yu yiw la ba xalaat boo xam ne bu lay alag la saa bu dikkee nga dàq ko na nga koy dàqee nag mooy xalaat du rafet rek waaw ndax lu ci bëree bari balaa nga koo jëf ca biti ci biir lay njëkk a ci biir lay njëkk a xewee moo tax sëñ bi ne kon na ngay dàq ci sa bopp bépp xalaat boo xam ne xalaat buy alage la kama am sakta an aklin wa shurbin olima ni ki ngay téye sa bopp ci lekk ak naan na nga fexe bay téye sa bopp ci xalaat ci xalaat yoo xam ne yu lay alag la ni ngay fexe ba doo lekk doo naan ni nga koy xañee sa bopp ba xalaatoo ko sax ku la ko tàlloo ni doo ko jël nee na ki noonu itam yaral bët yaral tànk yi yaral loxo yi yaral mbooleem cër yi ba lenn lu yàlla gërëmul duñ ko jege. Euh, su ko defee nag yi mooy yenn ci bayit yoo xam ne ñu ngi ko jukkee ci masaalikul jinaan muy juróomi bayit yu ama am solo yu mat a bàyyi xel ci koor moo tax borom xam-xam yi dañuy séddale koor ci ñetti wàll. waaw wàll wi nga xam ne moo ci gën a woyof gën a jàppandi ci ñëpp mooy woor ci lekk ak naan waaye wàll wi gën kawewaat nag mooy fexe ba woor ci lépp loo xam ne du ndigalu suñ borom waaw lépp loo xam ne suñ borom gërëmu ko lépp loo xam ne suñ borom digalu la ko nga fexe ba téye ci sa bopp yaakaar naa ne koor gi moo gën a kawe gële te gële itam mi ngi amee pay boo ko booleeg bii waaw fexe ba lekkoo naanoo waaye waxoo lu di jëfoo lu jubadi fasoo ci sa xol bi lenn loo xam ne ak jubadi la woor bi nga xam ne nag mooy wooru gaay yi yàlla yi suufiyanke yu mag ya mooy set wecc ci lu dul yàlla waaw loolu moom lu lu lu kawe kawe la mooy ki dem ba jël léppam jébbal ko boromam ba nga xam ne buy wax ak a jëf ak lépp lu muy def da koy def ngir jëmmi suñ borom waaw kooku dafay soxla woon ndigal yi soxla woon ndigal yi soxla woon li yàlla gërëm ba nga xam ne jot gu muy jox lu yàlla mu dootu ko am loolu moom mooy lii mooy li ëpp solo yàlla nañ ko yàlla yàlla nañ ko yàlla defal su ko defee rek li ñu war a mën a jàngee ci koor itam tabe ca la bokk waaw bañ a mooy yàlla ca la bokk fexe bay fuuglu suñu borom ndax kum neexoon kat nga beru ci ruq lekk naan ba suur te kenn du ca xam dara waaye xam ngoo xam ne boo lekkee naan sa borom bi tax ngay woor xam na ko moo tax ba mënoo koo defee fenn du ca ruq ya du ca boo wéttalikoo kon nit ñi taxuñ ngay woor waaye sa borom moo tax ngay woor loolu nag bu weeru koor jàllee itam jàng ko ci ba saa su nekk ngay fuuglu suñu borom xam ne lépp looy bëgg a wax mi ngi koy dégg lépp looy bëgg a jëf mu ngi koy gis lépp loo fas ci sa xol biir xam na ko bu wér waaw Diko fuglu diko baye xel sa su ne lu ama am solo la te itam luñu wara mëna jangé ci koor la li ci ci koor ne bayi lu dagan ngir yalla képp ku ko def lu mat weer ah bo ca paré war nga mëna baye lo nak dafa aram ngir yalla waaw lekk ak nan lu dagan la yenen yu bare bari yo xam ne koor ak yoy dañ koy faral di laal dagan na ko tane ndax bu àggee ci aram wala ñu sipp rek bu fekke sañ nga xañ sa bop nak lu war dagan ngir jëm yalla yaakar naa ne nag lu aram ak luñ sip kon noko wara def loolu tam war nañ ko mëna a ci koor bu baaxa baaxa baax motax dal li ëppoon solo moy fexé ba defaru mel nañ wara mel suñu diiru dundu ba bu wéru koor ñëwé itam baax gogu ak defaru gogu képp lay fekk ci ñun ñu ko ak mom mu dem bayu ñu ci waye buñ melé ni man na xawa sa gën ba wéru koor ñëw ñu soppeeku ba mel ni gën di wax li gën di def li gën sax ca bu wéru koor jéxé nak li ëpp solo mooy nañ fexe ba wéy ci mbaax googu wéy ci defaru googu xam ne loolu képp moo ñuy jariñ ndax bépp safaan boo fi jëf boo xamoon lam lay jural ëllëg wax dëgg yàlla ku la ca bëgg a woo doo ko wuyu te itam doo ko doo def mu xalaatoo ko ndax fa man yaxmal misqaala zarratin xayran yara wa man yaxmal misqaala zarratin charran yara lu waaye def boppam na ko sëñ Tuubaa doon waxee ne kenn deful kenn dara kenn defalul kenn dara lu waaye def boppam te itam lu baax baax na waxtu wu nekk waaw du na ci weeru koor képp la baax waaw kon baax na waxtu wu nekk yàlla nañ yàlla saxal ci mbaax saxal ñu ci ak defaru saxal ñu ci lu mu gërëm weeru koor ak budul koor wax dëgg yàlla saasu ñu sax ci loo xam ne suñu borom gërëm na ko ñi ngi jéggalu bu baax ci kàddu yi fii dañuy tënkee waxtaan wi rek di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.